Música asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax comme ni ma leen ko waxee rek janax day bari pax muus day mun a wax ñeew ah, kon nag jamono ji nag dama ne am na li nga xam ne nag moo limbe réew mi ah, gars yi di ko wax ñii di ko ñiiw ñiiw ñii di ko ne ndax am na ndax amut ah, bu boobaa nag dinaa toog ak ki nga xam ne nag mooy ndey mbilla bi su ko defee nag Ah, mu nar ah, wax ñu ndax loolu am na na amut waaye balaa ñuy dem si loolu rek ah, fan yii si gannaaw ki nga xam ne nag mooy Fabakary Tombong Jatta mi nga xam ne moo amee li nga xam ne mooy APRC parti bi nekk seen i fan yii rek si gannaaw ñëwoon na si office bi ki nga xam ne mooy Pa Ousmane defoon nag moom face à moom nag mu wax ne su dee moom mooy woon lawyer Ousainou di vice président bi dina def li nga xam ne mooy resign su dee nag moom mooy woon ki nga xam ne nag mooy président bi dina daxa ki nga xam ne mooy Ousainou daabo kon nag ah, two days rek leen ci tek rek lolu am gay ñuy wax ndax Fabakary mii ah, ndax mom waliw la ndax du waliw ndax lan la bu boba ma laajte ko ko netal islam ñu borom la daaxee nuyu na la. feyna la Fatou again ma ngi gërëm ah, Gambia Talent sen contribution bi to uh, information dissemination entertainment ak youth empowerment is is appreciated and highly applauded. waaw Fatou euh, man maa ko waxoon ma ne man de su ma nekkee président Adama baro balaa Ousseynou Dabo di resign naa ko daa te su ma nekkee Ousseynou Dabo tam balaa président Barrow di ma daaxa dinaa resign unfortunately for Ousseynou daabo bañ naa resign te xam na ne am na problème ak Barrow ba ñu daaxa ko his credibility legi mungi at stake because lihe omoi, bogi se président ditana nit pour jox la euh, place yi vice président is based dafa based on sa mun-mun bi ak sa loyalty bi so bo bo demee ba sa diggante ak président bidal, daal amut euh, loyalty amut yo looy xaar because président am not droit ñi mu bugg a mooy ñoo xam ne they are efficient and they are loyal to so soo faa loolu man xam naa ne loolu manqué na Gambia Gambian si yëpp amoon nañ ko soo balaa ngay toog ba ñu daaxa la doo resign honorably ba yoo nga nga toog ba ñu daaxa la du mun a wash himself out of these problems bugg place bugg place ba ñu daaxa la te yoo xam mu ngi wax yëfi eh, président Barrow ak eh, li tax mu daaxa eh, Ousainou daabo ak eh, president baro digantem ak APRC degana lu bari wala xam nga lima ulu moy ñun APRC first of all dañ dañ ñaan yalla yalla musal ñu ñuy tok ak wa eh, askan bi dineen dineen fenal lu ñoo wax rek suñ digante ak yalla duñ musa fenal xana doomi adam lañ mën nañ juum tuti rek ba lu xew moy UDP li tax ñu bari di di daw UDP am na ne ñu fa nekk ñoom xamuñ jana gannaaw saagante di di di character assassination ak ak lu bari tax na ñu ñu baax ñu bari dañ toog téye seen boppa soo dañ war a dañ war a look into themselves ne jamono ji politique bi amut saagante amut teesante amut euh, character assassination lu xew rek issues yi lo what what are the issues in the Gambia nit ñi lan lañ bëgga yo ba lo am pour wax ko nit ñi so ñu olu la pour jox la place bi ba di sagan nit ñi di tessante ak nit ñi di caractère assassiné nit ñi lolu amatu Gambia yeen sen jamono bi APRC nek APRC ndax yeen do len daan def lolu non manam di xassante di ngañante ndax APRC dum daan def lolu yo yo man nekon na APRC from 1990 since bin commencé gom gom gom na ne ken duma musa dega ne man mangé sagan you know ñun dañ comme ne we have issues to euh mun nañ disagree with you you know mun nañ ñaka agree with you lolu part of politics la but disagan sagan nit ñun luñ gom moy respect people's opinion but you have the right to disagree with them you know ñun lolu lañ gom pour sagan nit def nit ñun ñun dedet lolu ku def APRC ñun ñun sant ñu la ko Those, that's, those are our principles. But I think it's important tam um, Fatou pour ma leeral ñeneen ñi ñeneen issues yi ñoo xam ne man loolu laa dégga dégga déggoon naa ko si audio WhatsApp audio si euh, ñoom maag jaane di wax lu bari dañ wax and I think it's important. baax na baax na ok baax na jërëjëf ah, xaaral rek ma ñëw uh-huh. ah, nu ma leen ko waxee rek janax bee bari baax mu see mën a wax ñeew a ah, toog ak ki nga xam ne nag jamono ji nag ñu ngi wax lu baree bare si moom ndax am na ndax amul bu bu baax honorable am na ñu bari ñi nga xam ne wax neen ne li nga xam ne mooy baro lu mu daaxee ñaari UDP ministers ak ki nga xam ne mooy vice président bi was politically motivated yow lan mooy sa réaction si loolu waaw euh, xam nga Fatou ñu bari euh, comme li ma la ko waxoon rek et ñaa xamuñ ma tam. Mhm. man am amee free born. free born mooy rek man suma dur bi soppiyoon ne le yeneen leneen yi duma ko mun a def. Mhm. in this world. Mhm. mooy di tappale mooy di fenal nit. mooy di yaaxal nit loolu mënuma ko wala nit di ma dugg loolu I am I am I am too good to those things you know ñi ma xamut mun nañ mun nañ wax waaw comme lim liñ ko waxee rek président Adama Barrow moo daaxa euh, former vice président u Darboe ak ñaari ministres dégg naa gars yi ne Fabakary moo demoon si Barrow mu ne mu ne ko daaxal gars hmm. waaw loolu dégg naa ko ba loolu du suñu affaire ñun ñoo baro baro mooy suñu président rek bot ñun suñu pati bi ak euh, pati moom fu mu nekk bokkul bot ñun dañ ko ne baro is our président président Adama Baro mooy suñu président te président Adama Baro ñun gëm nañ ni soo fa mooy président am na droit pour daaxa any cabinet minister if euh, su fekkee ne is in interest of the people so ñu ne man maa ko daaxa ma ne waaw man am naa doole di di dem si président ne ko dahal diw sangam rek ñu daxal lolu lolu man sa duma def lolu bala may lata def lolu so ma laajee suma opinion na la ko wax bot duma dem di wax ni ñi ne dahal diw sangam di defal li dede bot ñëpp xamoon nañ ne UDP e ministre si ak ba ak président Adama Barrow they were at loggerheads so naturally the president of the republic du mun a euh, antan lolu mu appoint la based on your eh, effectiveness and loyalty mu gis ne loyalty bi nekou fa ngeen nek di di troante eh, eh, certain words why why na la daha ku dekka la na la daha su fekkee ne man la sad na ko na na na so loolu loolu moy issue so ñun <laughs> li li li metti man lima xalat ne mo mo mo issue li yeb moy UDP ñoo doon wax ne president Adama Barrow jaatoo jaatoo président Adama Barrow kaani président Adama Barrow ñoo doon saaga ñoo ñe ñoo doon ne ñoo nekkoon si nguur gi eh lu lu lu baax loo mun a xalaat wax nañ ko si Adama Barrow ñoom ñooy toog léegi ñu ne Adama Barrow baaxul Adama Barrow lii Adama président Barrow lii ñun soo ñoom loolu lañ foog ñun we have the right as a political party pour waxtaan ak any political party dafa depend on ndax d'accord nañ wala d'accord ñu but ñàkk a waxtaan kañ ñun bokk bokkuñ si loolu ñun we we are open to any political party to dialogue on the way forward for the Gambia if there are possibilities where we can come together fine if there are no possibilities fine but li ñu xam rek mooy ñun we are the most formidable party in the Gambia kenn du kenn kenn duñu jël teg for right waaw loolu dañ ko bëgg a setal but we are open ñun we are open te ñun dañ gëm yàlla and we believe in the welfare of Gambians te ñun gëm nañ ne président Adama Barrow mooy suñ président te ñun liñ gis léegi mooy on the whole président Adama Barrow problème am bi yëpp UDP la woon ñun loolu lañ ko gisee de problème am yëpp UDP la waaw because UDP joo waxoon ne Adama Barrow bon na baax na léegi ñu ne bon na soo soo liñ xalaat mooy lu lu mun a xew fii loo xamee daal bonoon na UDP mu ñu ngi si waaw bu boobaa rek ah, dinañ gën a ñëw ah, li nga xam ne nag mooy waxtaan bi ma bëgg laa laaj président Adama Barrow bu dee UDP ñoo ko étati woon léegi comme noo ko waxee rek UDP daaneel nañ ko ah, foog nga ne président Adama Barrow ban parti la bokk jamono ji ban political parti la bokk. man li ma xa suma xalaat bi mooy président Adama Barrow bokkul si benn parti suma xalaat asan naaw góob xalaatuma ne dafa bokk ci benn parti fu mun a bokk sax mooy woon UDP. boot hamna ni ne UDP because li xew nañ fàttaliku li isi problème bi président Adama Barrow is the president of the Republic of the Gambia mu ngi si parti UDP on on uh, si si si kaw loolu lañ ko tànn as an independent candidate for the presidency muy dem dem dem mu ya ne so fa man pi UDP la neka nekon, so hamna naa ne su ma ñaareel su UDP du kenen. kenen man la ñoo tànn ah yu di fii fel ne déedéet ñoon duñ la tànn is not warugal du warugal bu ñu la moo isi yoon différence bi ñaareel bi président Adama Barrow dafa amoon dis Barrow Youth Movement UDP ne Barrow Youth Movement war warta am man loolu daf ma jaaxal Babakari Youth Movement Yankuba Koli Youth Movement Fatou Youth Movement dara ayut si loolu te politique amul forcé politique soo soo amee nit ñi da ngay naxante ak nit ñi nga nga nga nga am leen ba yow nga commencé di daax ñi ngeen di def congress di génnee ñeneen ñi ñoo xam ne daal di associating themselves with Barrow moo isi all this fracas in the UDP ba du loolu rek UDP is for us ñun ñun UDP jigut Gambia. ko wax. maa ko wax. because euh, li ma xalaatee yu di ma xalaat ne ñoo toogoon si radio du wax ne ñoom ñoo nekk si nguur ji ñoom ñoo waxoon euh, ñoom ñoo taaj président Adama Barrow ñu demaat demaat demaat ne ñoom soose yi ñoo moom ñoo réew mi te euh, soose yi nañ jog am na ñuy wax ne sax nañ jóg against the APRC lu bari lañ wax mm-hmm. UDP so façon yooyu si réew loolu ah baaxut ñun Gambia fii we are all Gambians ak golo eh, golo eh, jaara yi sax Gambian lañ. waaye honorable am na ki ma wax ne ne UDP eh, ñoo wax ne ñoom moom Gambia comme noo ko waxee waaye ñu ne amoon na jamono tamit ah, président Yaya Jammeh di former président bi daf daan wax ne ne ah, Gambia suma Gambia la contextual. Mm. non as president nga ne Barrow daf day wane suma Gambia suma nguur you know as this But Yaya Jammeh um, Musta wax ne moom moomu Gambia. And Yaya belongs to a tribe, Jola tribe. ñooñu they a orthodox believers in what Allah wills. ñoom PPP dañ ko mën PPP toppaleen APRC ñu toppaleen ñoom duñ dee weedi bu baax and gor lañ soo ñoom gomuñ loolu li ñu waxoon mooy Yaya Jammeh am na li mu waxoon soose man loolu ah am na li mu waxoon soose Eh, ñu ne dafa saaga soose ba pare mu ne soose bi musa toog si toog bi Yaya Jammeh lu ëppa loolu la wax joolaa te moom joolaa la you know it's different Yaya Jammeh daf dee wax li nekk si moom whether you like it or you don't like it to the best of his knowledge loolu la dee wax te he does not differentiate amul joolaa nga walla soose nga walla leneen nga Yaya Jammeh amul loolu so ñii wax ne Yaya Jammeh wax na ne <laughs> ñun ñoo moom Gambia déedéet yaa man musuma dégg yaa jame du wax loolu das das man loolu laa xam si loolu soo foog nga ne ah, ndax amul ah, sooy ah, xool li nga xam ne mooy political party bi gisoon nañ parti su bari ñoo toog booloo nekk benn jamono ji ñu toog ñu yaa ngi wax coalition amul ñii ñu ne coalition am na yow noo ko gisee coalition am na na amul xam nga fu coalition bi tase April during the parliamentary elections seven political parties at independent ñoo mbooloo tànn président Adama Barrow on the coalition ticket muneka président independent président eh man expect on moi, mooy suñ demee to parliamentary elections nine booloowaati put up national assembly members ñoo xam ne coalition national assembly members like. ba taami président bi jeex taami ñooñu but when we went to national assembly Magisne, ne gars yi parti bu nekk dafa dem taxawal boppam ma ne gars ma ne suma gars yi ne hey président président Barrow has a problem because li xew mooy parliament is an important arm of government so soo demee ba political party si ñoo ñoo dem si parliament bi yow as président bokkuloo si benn parti xanaa juróom people ñi nga nominate kenn du la so that is that is dangerous so man fa laa xam ne am na ñii ñoo xam ne dañ am an agenda soo si laa waxoon ne président Barrow dina am problème te loolu loolu moo feeñ léegi waaw waaw soo coalition fu mu nekk nii it is it's a barrage of convenience fu mu nekk nii am na ñu fa nekk ñoom NRP Amat Ba ak ñeneen ñi ñu fa ñu si coalition bi kon ñu bari <laughs> coalition si ñoom coalition dem na UDP moom xalaatu coalition te de def nga ni ay force in the coalition soo coalition bi moom <laughs> dañ ko faté rek coalition mom mom dem na yona waaw kan mo bitré kan euh, bitréel bi euh, man li ma gëm moy coalition partner si ñoo bitré président Adama Barrow mm. loolu wé lool la la wax ni manela ne la ñoom ñoo tan président Adama baro on coalition ticket mm-hmm. ni ko war am coalition national assembly members ñu bañ loolu ñu dem ku nekk taxaw bopam bàyyi ko bàyyi ko lundi ñoom ñoo because ku nekk dafa bëgg a place bi problème rek ku nekk yi looking at your strength so that <laughs> nga nekk si place yi presidency yalla moko ko dee joxe and uh, ñun gëm nañ ni uh, the next government in this country after president Adama Barrow dafay nekk APRC APRC rek moo mun deliver goods to the Gambians <laughs> yeah moom wax ki nga di honorable Gambia ne next président wax bu di ko fan nga ko if you look at the uh, soo Sahel, be président Jame by by Gambia the source of the Gambia it was very difficult very very difficult for Gambia the coalition then wanted APRC to die out gars yi dañ si freeze our our party accounts daaxañu si suñ bureau yi arrest our people at random created fear in people mm-hmm. all because the APRC should die out. We underwent all those conditions until it October 2017. We decided we are going to call Gambians to see whether Guy Lunyowa, with all these uh, uh, smearing on the GRTS lu bon loo mun a xalaat war nañ ko Yaya Jammeh ak APRC after October 28 ñu oote that political rally at the Goubassou you remember it was the biggest political rally then in the history of the Gambia xam nga si la APRC commence nag di move Sila people begin to realize ne ñun duñ mun a duñ mun a yaakaar benn oda parti gannaaw APRC ñu dem dem dem dem dem dem be du am di kotu kotu uh, eh, uh, eh, stress free get together boobu du rali sax get together la stress free get together, get together. boobu tam nit ñi xeñu fa we went for the Brikama rally on the 26th of January 2017 fala affaire bi fala fala ñu fala fala affaire bi eh, went beyond imaginations And di interesting thing is Gambians are calling us all over the country. Di ñu wax ne please get up APRC ñun léegi after two years gëmuñ benn parti gannaaw APRC moo tax ñu ngi plan pour dem tour next month. next month we are going for a nationwide tour. people are eh, man suma boppa léegi léegi sax dama dee tiit sax people call yi ñu dey ñëw from various parts of the country bugga ñun ñu jóg fii dem ñu waxaa ñu waxtaanaa ñoom so ñun xam nañ ni APRC is the next government after Barrow. so yéen jamono ji APRC fu moo jëlee xaalis parce que nga ne dañ leen freeze dañ freeze seen accounts and everything but APRC fan la moo jëlee xaalis da ngeen dentoon xaalis si eh, li nga xam ne mooy suuf bi ndax naka la. bi si day san adage ne boo amee nit ñi ne ñàkkuloo dara mm-hmm. boo amee nit ñi nga ah, ah, you see the Brikama rally we spent almost half a million dollars it all came out from the pockets of people. Motoyunga gis yoyu yep, all the vehicles, now there are about 10 vehicles being donated to the provinces. All the hundreds and hundreds of vehicles were hired and taken by people. We did not give them a dime about it. A dime. People contributed. People bought the Asobi with an addition. If Asobi will cost, let's say, 200, we make it 225 or 250. People buy it and then we have our, our, our, our profit, and then low line don't use. The road to Basel, if you, are, if you are not aware, then gain a ticket. APRC nationwide tour, road to Basel, ticket, Mohammed Al is $100. You all over. APRC, you gender. So from those funds, we are going to prepare ourselves for the road to Basel. Mm -hmm. So, ni ñi ñoo seen boppa ñoo halis nit ñi seen boppa contribute towards the success of the party moo tax ñun óolu dañ óolu ne we are there because we have mooy Niki ki bu gëmul dara du fa dugal xaalisam but the poor people are putting in their money people are coming and telling us we will buy a booklet of five thousand dollars fifty tickets people are buying ten two books people are pledging in the people are buying one ticket hundred dollars so that is the APRC waaw honorable ñeneen ñu ne dëkk bi dafa métti jamono ji ah, kon yow bu nekkee ne ah, am na njiit yu baax ñoo xam ne ñoo nekk di contribuer OPR bi bu tax OPR bi nekk di dox ah, fooguloo ne kon nguuri baro bi neex na. non non non non ba hundred dalasis ku ñàkk a hundred dalasis da ngay dee fii nga ña nga dem ba ñàkk a hundred dalasis da nga dee rek xam nga suñ jamono hundred dalasis léegi mooy den one thousand dalasis ñun suñ jamono money was flowing. ba li maay li li maay wax mooy dëkk bi yees dafa naxal bon you see nit ki ak lum gom gëm nit ki bëgg naa sacrifice his own life to have change so APRC ñëwaat ñu ngeen nama APRC back to power ñu ngeen nama eh, APRC ñu doon def loolu la nit ñi bëgg moo tax they will they will even sacrifice seen koppandawal pour gëndal pour gëndal pour gëndal ticket so APRC comes back to power. macha allah ma we are a democratic institution congress when we went to congress you saw it was one of the best congresses ever in the political history of any other political party here This is nañ eh, congress we went all out gave our statement of accounts came out with resolutions looked at the party constitution listened to the people for the way forward etc etc ñun we are a party of the people te léegi sekatuma léegi ñoo xam ne daal dañ nekkoon si nguur ji ñu génn mun a look in inwardly gis loo xam ñoo all those things loo xam ne they are weaknesses we want to avoid those things and then expand and strengthen suñu suñu strength si so that ñu ñu tasaare ko si Gambia Gambia gën a neex people go out of poverty poverty youth employment you you'll be proud to be a Gambian you know these are the things we want and these are the things we are going kon Fatou am nga am na am na li nga laajtewut bi xaw ma ndax àgg nga fa. dinaa ñëw maa ngi ñëw léegi tey may xuus jaar léegi tey ma egg si ah. ah, bu boobaa nag wax nga ne seen parti moo nekk parti bu gën a mag ah, waaye ki nga xam ne nag mooy Ousseynou Dabo di leader bi nga xam ne moo amee. Ah, moom nag fan yi dem na Seattle Amérique ah, mu def fa li nga xam ne mooy congress boo xam ne dëkk bi yëpp ah, jamono ji nag moom la ñoo waxantoon moom nag si ay kàddoom mi ne nag benn parti si biir Gambia bi musa mel ni moom parti bi di UDP parce que gars yi dajaleel leen ko xaalis boo xam ne nekk na 65 000 dollars soo nekk na 3 million over 3 million dollars yi only biir Seattle rek a ko réesal loolu mom Ousseynou Dabo nag mi UDP mo nek di biggest political party ndax yow di nga nangul loolu. non xam nga laameñ amul amul amul amul bonus amul boy ya, amul ja ya. mhm. laameñ mhm. lu la ne nga wax ba ñun ñu fi na ñew let's come to the wrestling contest uh, arena bi mu ngi fi ñun uh, bu waxe lool yes mun nañ race halis Bobu, because bo baye ku sahel ñu bari ci Gambia woon UDP moo leen dimbale di lañ jox lettre ne APRC dafa bon APRC lii loo fa nekkal ñu jox di lañ jox lettre seen la kañ di dem uti asylum abroad di yaakaar suñ tur ñu bari soo jooju fa ñu jox leen xaalis bon that is the repercussion now people are facing mais looloo tax ñu tëjoon Amadou Sane dafa fàtte Amadou Sane dañ ko tëj because dafa doon he was giving letters to people illegally they ascribe to they want something against the Gambia, which are not true. So lolu lolu moo tax but if they are able to raise money for that level, well, walhamdulillah. Ñun we can raise money within the Gambia by our people with our 50 and 100 dollars. And honestly, and it's going to be clean money and we're going to operate for it. And inshallah, we will take over the reins of this country through those monies. Mm -hmm. Yes. Gumalum. Yun pare nañ so maanaam ban mooy the biggest political party. is a APRC ma ne waxoon nañ fii na UDP organise a meeting that we have been organising ñoom ñoo ñoo ñu a am xaalis ñoom they are but they cannot organise it you see the political experience also is not there ñun dañ yàgga si mbiri mi we know the in and instant out how to organise how to pull people how to handle people how to consolidate people ñii moom boo defee dara ñu daxala boo demee baroo yuutu même instead of ñu nax ñu naxante ak ñooñu ñu ñu génne leen si place yow nga am formidable force ñoo xam ne daal ñoom ñoo sasoon lu di just because yow yaa ngi si baro mu appoint la vice président mu jox la moto mu ngi laa fay you have all the benefits you are in that government keneen dem baroo youth movement di fa benefit nga ne li tax kooku dem foofu nga daxam te yow lu yow yaa fa loolu loolu loolu kenn loolu loolu rafetul sax te yow yow doo leen jox dara pour ñoom ñu dunda te ñoo some of those people are formidable UDP UDP supporters yes so moo tax ma ne it is important politics amut forcé politics you talk to people bring issues out talk to people what you intend doing bring out your manifesto and market it bring out your thoughts your programs people will listen when we have a track record, a beautiful track record of development-oriented party. We are a development-oriented party. ñun dañ care for the welfare of Gambians mun nañ put our lives for the welfare of Gambians loolu kum si Gambia yes you can say anything about us but we are out to protect the interests of Gambians at all costs. we don't mortgage Gambian people's interests as the as the as the former foreign minister did in getting our people back from the diaspora into the Gambia. du ñu ne du naan def loolu ñeme doo ñu yàpp dañ tuuti but we are a sovereign independent state loolu dinañ ko protect with our life waaw. Ah. protect the interest of the Gambians with our life. Euh, maanaam euh, fan yi rek si gannaaw ñu ngi am li nga xam ne mooy euh, benn laari fii rek si gannaaw bundum maanaam oote fa nit yu bëree ñu dem Seattle tamit gars yi def fa beneen pati ñu ne dafa mel ni APRC moo wàlla UDP moo ñu ñu ne stress ñu ne dañoo liggéey bu ñu liggéeyee ba pare we go and have stress-free activities nga relax enjoy yourself and enjoy yourself ñun loolu lañu am all work and no play makes Jack a dull boy all play and no work ñun we work and we relax ñoom xëy na they are copying from us but ñoom they have a long way to go because ñoom they have they have no blueprint here defuñ fi any map ñoom centre courts are very bad centre courts in the Gambia even the time they call themselves they were in government dara dox dara doxul sax gannaaw di di boot suñu yi lack of security fu ñu dem rek ñoom in all spheres of where UDP was failed Gambians yëg nañ loolu so UDP is a pro more a problem for the Gambia than a solution to Gambia's problem UDP is our problem. Ah, gaa yi ñu ne ki nga xam ne mooy Ousseynou Daba lu loo ko bañ bañ bañ foog nga wax ne moom mooy Nelson Mandela Gambia ah, yow ndax loolu gëm nga man man to be honest loolu saaga la si africa to Africa. Saga. Wow. lu you see, make comparisons make comparisons who is Nelson Mandela actual Nelson Mandela fought for the liberation of South Africa during apartheid. He was taken to prison and while in prison when they when they Nkurku receives me. When they created it, their offices were raided. He was brought from prison and then taken uh, and then taken to court again. Then he was serving a five-year sentence. And at that court proceedings, it was meant to to send all of them to the to the firing squad, to the firing squad. And Nelson and others took it upon themselves that before they go to the firing squad, which they are prepared, they want to address the South African people and the world alike. That was the, uh, that was the famous speech of Nelson Mandela. I stand as the first accused. You know, if you remember those days, this is what he did. From there, they were sentenced to life imprisonment. And Nelson was in prison under very harsh conditions, but still maintained the spirit of the people. And when Nelson came out of prison, finally, he, he became the bedrock for the stability of South Africa. They had the truth and reconciliation, you know, these things. And they have pardoned all those who have done bad to them. He integrated the whites and the blacks together. He said South Africa belongs to all of them. That's the, those are the type of leaders we inherit. After five years in power, he resigned. He said he's not going for a second term when South Africans did it that is Nelson Short. Hussein Udabo, remember, was here, if you remember the Base crisis, when Aliu Aliunjai was killed, he was massacred to death. And uh, what has he himself contributed to the welfare of Gambians? He's a lawyer by profession. So many people that I know of, including my own brother, paid a price the man, the man lost his property through Usenu Dabo, according to him. Two, what has he contributed either as an individual for the welfare of Gambia? What? I don't I don't know. Two, he was in jail for a criminal offense. You, you, Gambian law, there's a warning, before you can demonstrate, you take a permit. He, he did it without a permit and he was sentenced. And he appealed against the sentence during the Barrow government. It was thrown out. It was legal that he was sentenced. He appealed again against the law itself that it is not constitutional. The court ruled that it is constitutional. Is that, is that Nelson Mandela? Is that Nelson Mandela? I'm sure if people say Nelson Mandela, Nelson will shake himself up in his so let's be honest to our conscience. Let's, let's be factual. And uh, with Nelson Mandela, some of the remarks made by UDP stalwarts about tribe tribalism, uh, get up and rise against these people and all these things, Nelson will never think about that. And we never had Usenu then as foreign minister and as vice president coming to, the, coming to TV to talk to his people, to tell them Gambia issues. He said, no violence. When he came out, he pardoned everybody. Let's forge ahead. Let's put the past behind, learn from it, and we move forward. kan la noonu. mooy ban ban speech am. ah legi legi ah, legi legi léegi léegi loolu because legi he just like us he is an opposition like us now. <laughs> <laughs> so. so maanaam lu nekk opposition moo tax euh, lawyer Darboe muy wax lu neex. waaw waaw waaw nguur moo am doole xam naa xanaa waxuma nguur gi li ñu def mënuñ si dara so moom it xam na loolu moo ki place ñu daxa ko so da ngay wax waxu lu neex bu du waxu bu neex <laughs> doole bu fa de so li tax waxutoon loolu bu mu nekkoon vice président. lu tax waxutoon loolu ba mu nekkoon foreign minister why now? ma la dama len ne Gambians are no longer sleeping li sey wax wulu ndi Finko say nga pote Gambian ko beñat motax politique bi ne ken du meuna naxati Gambians ana su len ne ah, waaw mbokk yi comme dama koy wax rek nit ki nga xamne na dafa mënu wax soko waxe ya waxee waxal kooku foog mu wax ah, kon nag honorable gis ngeen na jamono yu passé euh, di gis lu bari bari bi daan cross carpet maanaam nekkoon euh, beneen part ñëw join APRC waaye jamono ji gis nañ APRC ñu bari ñu ngi génn si seeni euh, parti di dem si yeneen parti yow noo gisee loolu. fan la foo foo. ku mel ni Sidi Ndiaye génn na si li nga xam ne mooy parti bi. Hmm. waaw. waaw well, Sidi Ndiaye is an individual. that is normal for any political even then before APRC am na ñu fa doon génn dem ba li may wax mooy Sidi did well for the APRC. You know, remember he was he was uh, a nominated member, and uh, during the last days of Yaya Jammeh, he was the Minister of Information. He he stood by the APRC. He, he, he was the mouthpiece of the party. He went with President Jammeh. He came back. He was with us. He was bold. He contributed a lot. So, loolu jee ma ne la xaaral ba ñu jógee si too bi su ñoo jógee si too bi yow sa boppa da ñëw nga ne ma nangu naa ne jël ngeen réew mi <laughs> wallaahi la loolu. rek waaw waaw am na. no coalition 2016 Yusla. Nyom, they, they agreed that they worked they were baffled to work against the APRC because guy luñ lañ wax ci loolu lañ yakaron free visa Gambia dina gën neex so ñom ñu dem two years frustrated, be bu a sen sen nata nattaangoo ñu nekk ci uh, outside the Gambia ñu leena di deport frustration added ñu ñew toros ñu ne They are now in full force with the party. Then they donate towards our tour to Basse. Mm-hmm. We issued them a receipt. Yes, that's the APRC. People know who we are. And you know, we have credible people in the leadership. You know, we are not stained. And we were in government, in positions of power. But even UDP, some guy, we were helping them, bailing them out. Bailing them out, helping them. You, when you now UDP come to me and tell me that. We were not even segregated. We were solo Sunday. Just like Sunne Kanmore Haruna Jata. You know, these are beautiful stories. Solo Sunday died during APRC's reign. But can you attribute it to APRC or to President Jammeh? If that is true, then attribute all the killings now to President Adama Barrow. So these are the facts of life. And you know, you know, uh, it's the responsibility of the state to ensure stability, peace and stability at all costs. Even if Bohole uh, in the most advanced democracies, you see the police with the people. Tear gas, doors, taka, living, so li ñoo wax mooy go by the law and you are free nga ñun APRC xamuñu dara gën a discipline to go by the law yeneen yi nag dañ de tooñ di use doole si suñ kaw mënuñ si dara ba dinañ ko wax balaa ko wax. Ah, balaa ngay dem Fatou wax naa la ne am na some important issues laal loo ko. waaw ne. ah, ah ok. xaar te it ko nangoo wax right now foog rek ñu dem through uh, a process uh, bu boobaa nag foog rek ngeen toppama di leen wax ne nag honorable Yankuba Colley mu ngi nii caméra wu man wanal ma gars yi Yankuba ngi noonu moom it kanam tuuti rek dinaa leen tuddee moom jamono ji dina fayaam moo dee maanaam ay mataam uh, taalu bu boobaa nag dina leer ndax du leer fii la moo leeree ci Gambian Talents TV Ah, kon nag caméraman na ñëwaat ah, su ko ñëw si li nga xam ne jamono ji nag ah, moom la ñëpp waxantoo social media ñëpp di ko waxantoo ñu ne ki nga xam ne mooy président Adama Barrow dafa may honorable Fabakary Tombong Jatta moto ki nga xam ne nag mooy vice président ak woon di looya ko si daabo ma bëgg a xam ndax loolu lu am ndax lu am nekkal islam yi ñu waroon a baax face à face waaw jërëjëf Fatou man lii laa doon Wow, si mota tax li tax nit di daw judi bi because of this type of remarks di toog rek halat rek fen mota tax ñu ñu baax yëpp daw dégg naa maag jaane fi ngi wax lot of things ñu ne dañ ma may moto mu ne man bu ma doon politics politique bu ma nguur gi aw dara maa dunda on APRC lu bari la wax mu ne tam ma yokkal la si mu ne baro bu mu demoon fii eh, Mauritanie yaa jame dafa yónni délégation foofu you see these are ñi wax yi they are they are so bad and UDP uh, war nañ xam ne now we are in the 21st century ñun amuñ time pour di layal di fen you can never take people let me clear this very well man first of man first of all président Adama Barrow mu ngi si réew mi mu maa dégga joxuma moto at all joxuma dara. président Adama Barrow mus koo xalaat mu may mus maa dégga te kenn musuma koo wax ne président Adama baro saa mu ne dina la may moto. Mm-hmm. sakaatuma di ba may moto. Fatou man I have six vehicles. six private vehicles. my own uh, living bi ak suma I have six private vehicles so President baro, suma ma mayee moto sax ne I will be President baro. man wax naa la ne man I am Fabakary Tombong man am a different person man wax naa la ne man góor I come from uh, a free uh, a very noble family ñun we cannot be we cannot be board kenn duñu mën a jënd ñun we we are dictated by our conscience and ñun dañ believe ne whatever hurts us dañ war a xam ne moo mën a mooy hurt keneen tam whatever we like bugga dañ ko pour keneen ñun man naa nekk APRC ba pare di jël dugg pour APRC xanaa man maa moom APRC li li gars yi bañ mooy gars yi dañ duuloo ak président baro bugguñ kenn wax président baro te ñun nay wax ak all political parties ñun any political party that feels nay we you going to talk to us you are free to talk to us ñun gomuñ gomuñ gomuñ gomuñ those all all hand opposition nga nekk opposition nga do doo wax ak nguur yow doo bokk si eh, government bi do waxtaan ak ñoom doo leen engage ñun passé nañ loolu we are an opposition with a difference ñun dañ gom ne président Adama Barrow mooy the president of the Republic of the Gambia what we differ with him is we are not in his government and we are we don't belong to the same political party ñun we are APRC one million percent but we all want the best for Gambians so UDP seen problème bi mooy li tax ñu commencé di layal xamuñ ne ñun passé nañ 19th century ak 20th century ñu ngi si 24th century jamono boobu romba na ñoom dañ téye suñ toog rek di layal against people loolu dina leen may ndam they don't know the Gambians are in the 21st century ñoom passé nañ loolu the moo they lie di moo they they go down the drain so li ma li ma laay wax mooy I challenge anybody in not only in the Gambia outside the Gambia ne man xam nga amoon na about some months about last year tam ñu ne président Barrow daf ma mayoon moto boobu tam waxoon nañ ko fi kay bu ñu ne ma ñu ne boo demee si këram tali bi la soo léegi ñu ngi ko waxaat man xaw ma li liñ bugga liñ bugga mooy ñun ñu génne APRC ñun APRC fa la ñoo dee dañ comme APRC ñun fa la ñoo dee suñu amul nguur sax ñun bi bi dee to do our best to ensure that there is stability to ensure that we can share our ideas with government on the way forward for the government ñun loolu rek lañ bugga te ñun sonn ñu sant nañ yàlla. nun suñ mbaxal bi mun na ñaaku ñaaku ñaaku ñaaka boo xam daal duñ am suñ mool mbaxal du lekka you know so ñun we don't think about that wealth is not our problem ñun wealth is not our problem ñun our pride is to make sure that Gambia moves forward the welfare of Gambians and wax naa la ne du musa layal or fenal Gambians yi whatever is it no we will never do that so kai yi dañoo li ñu wax du président gamé musta yoni any delegation to président Adama fa bakari tombo Jatta mus mus paro mus ma jox motu you know ñom ñu ngé ñu ngee fen rek ñu né ñu xaar légui tay ñu gis ko xamna né légui tay ñu ñu ñu gis ko ki ma gané lu bari bari bari lu bari la wax so ba ñun lu ñoo wax waa APRC Moy these people are notorious liars dañ mun a fen loolu lañ defoon in the the 2016 presidential elections confuse the entire Gambian people with lies ba affaire bi dem li demee but it is now clear ne ñooñu yëpp loolu all those things are lies li ñu doon lie against President Barrow with their commission with their TRRC against President Jammeh loo dégga ñu ñu TRRC li pour pour ñu ñoo dégga ñeneen ñeneen ñooñu mus a nekk APRC te nañ xam ne tam TRRC 19 euh, novembre 1994 sojar neen ñoo nekk fa ñoom Yaya Jammeh dañ coup toog peacefully yeneen sojar ñëw bugg a jël seen place that's why the soldiers then UPP amul APRC amul te military coup If you, if you are going to coup a government, you must, you, when you get them, you lock it. Otherwise, if they get you, you are unfortunate. Mota, we will continue to cry foul with Alaji Barrow's appointment as, uh, as TRRC's uh, uh, research and uh, living. Alaji Barrow, a coupist, you attempted, you did an attempted coup there, you escaped to America, you were convicted there, he was brought here and then they went into the red, red, red, red. A Kupis, Mota Suma interview mining. If anybody tries President Adama Barrow's government, you escape. Bul halat ne if APRC is in power, then I know fee because they're not going to get the APRC. We will take you, we will deal with you according to law. A criminal is a criminal anything that goes to flout the fundamental, uh, our supreme law, the constitution, we will stand by it. So these are our positions. Mota, we are very skeptical about why Alaji Barrow was appointed into this position when we have millions of competent, independent-minded Gambians who can do the job. We are also asking for the uh, resignation of the IEC chairman wax naa ko suma interview we are gathering evidence and the uh, tey ñu pare pour prove ne the IEC chairman is not credible am not lu bari lu xew ñu ko am ndànka ndànk suñ paree we will throw the bombshell so balaa loolu yëpp na resign he is not a credible man he cannot he cannot be in he cannot uh, ensure free and fair elections when he is biased his own statements moom doesn't matter yaa jame ñu bari la employé ñu mu daxale eh? mun naa laa yaakaar la nga ñëw ne tapalekat ak lifin bi loolu ah su ma xamoon ah, loolu du ma la employé ba su ma demee ba xam ne yow nga ma daxala mhm. loolu moo xew yaa jame moo ko fine but even there there were some people who were critical about his appointment so man li may wax mooy moom xam na ne he cannot be he cannot ensure free and credible elections in the interest of the Gambia and in the interest of justice let him go so that he will leave the IEC's credibility intact. ahankañ loolu am na solo bu baax a baax ah, kon nag honorable ah, ñeneen ñu bari ñu ngi wax ne ki nga xam ne mooy président Adama Barrow léegi daal ajuma bu nekk rek ñiiti dañ dee séentu ndax amul moo def muy daaxee ñu ne Adama baro daal léegi ef ajuma rek mu daaxee te Yaya Jammeh loolu la daan def ajuma bu nekk mu daaxee ndax Adama Barrow dafa ah, jokkoo ak ki nga xam ne mooy président bi gaa yaa koo laajte boo war a nekk effective leader ah soo soo tànnee nit koy position national position nga gis kooku li nga ko li nga li nga si moom nekku fa looy xaar daxa rek. waaye Friday bi àjjuma. waaw waaw Friday eh, Thursday Monday Tuesday Friday moom he may choose to do it on Friday so that ñu dem si weekend bi so that he will relax but if anybody is appointed to public office and you are not delivering te man maa la appoint I will send you out so even if it is going to be hundred a day soo bëggul ñu daxa la defal sa warugal defal sa liggéey care for the people, work for the people, and then do whatever, are, have no problems. Even without even political allegiance. Political allegiance comes, comes into political appointments. So, yéen jamono ji APRC nekkul ci guilt uh, ne li nga xam ne TRRC nyom ñoom dañ involved. APRC yow da nga dégg Yaya Jammeh TRRC I, I cannot remember anybody talking about Yaya Jammeh ñu bari dañu xalaatoon ne suñu demee TRRC Yaya Jammeh lay ñum faa Yaya Jammeh la ko kita Nothing happened so far. Even the commission of inquiry, Yajame's name was mentioned a few times, and people will say, Yajame Mbulala, Moma Santa, Anamu, John Nakoko, where is the evidence? Documentary evidence. No, we are not a, we are not a lawless society. Government is, is, is, is governed by laws, regulations. So you cannot come and tell me, Mane, Yankuba Koli Moma Santa. Bepalene, Anna Living be Halis Bi, John Nako Yankuba Koli. aw ma benn évidence to prouve ne Yankuba moo ma santal lii te jox naa ko xaalis you are presumed innocent an accused is presumed innocent until proven guilty uh, Gambians are crying 60 to 70 percent of Gambians want Yaya Jammeh back now now now billahi I'm telling you you see the popularity our own ñun popularity sir. we got a lot of it from Yaya people's reflection on Yaya Jammeh and Yaya is coming when as soon as he uh, as soon as he, he feels comfortable to come he's a Gambian and nothing can deny him coming back to his country and uh, he's just waiting for his own time to come back to the country Yaya is coming back so how is the news like? Siya jai bin ne loye busi ni dawo. Baro ah, dahan ako nakalam na lang iya jai. Mas ngene nang liwakta nang iya yaya. So bin ne ah, dahan ne loye busi ni dawo. Nakala iya jai react. Eh. No, I have, I have, uh, eh, wahumal anything about that, but lima ham moy rek. Eh. Ya jamme it will not be a surprise ne ki ak baro ne ngulu. Mm. No, yes. yun ham na lolu. Yeah. Keep place la buga baro mu nga tok mom lu mu xalat rek moy baro jog mom tok xala president baro bugu dara and we voted for president baro gambians voted for him he cannot give our position he will go back to elections yes to façon yooyu moo tax ñu duloo di place bi la rek presidency te fi after baro <laughs> any other person APRs So buga so buga president after baro ñewal APRs berburu APRC do musa a nekk président. yow maa la bëggoon a bàyyi waaye foog ma ñewat waaw ñu ne baro dafa bugo a am ak loxo ak APRC manam ñoo nekk APRC yéen sëñ bi di ngeen nangu na do leen nangu. no lolu xam nga lolu politique is waxtaan. yu comme bi nga buga man am buga buga a li ma am ñu waxtaan suñ d'accordé ee walhamdu suñ d'accordu nga dem sa yoon ma dem suma yoon ñun APRC limay wax moy ñun. We are second to no political party. But we are not selfish, we are not greedy. We want the best for the Gambia. So if Barrow or any other political party who are what are on any terms, we are open. You will come with your terms, you know, I'm not in terms, you d'accord, give and take, politics give and la, suñ mun a d'accord eh, until we agree, bi rest assured ñun lu ñu war rek ko def. ñun di nekk waa coalition yi de wax li tay rek élégant everything changes non non non non non non no, ñu no, ñun no. si loolu ñun lu ñu wax rek lool lañu def luñ ko mut rek duñ fa dugga ñun moy lool moy APRC So nan nit ñi xam lool so ñun UDP dia FSA da baro ndax tok talk to APRC APRC so big su Barrow waxtaan ak APRC ba ñu UDP is doom. xalaat bobu lay ñoo commence motax ñu ngi lay rek di fen di wax fii li di ñu tumal di. create doubts in APRC or create different divisions between political parties. We are too mature for that. We are too mature for that. Any party, Kohame Gambia, Buga Gambia's development, and you want APRC to be work with you, we are free to come and contact us. If we agree, we, we go. If we don't agree, we find alternatives. But we are open to all. So, yeah. Uh, eh, yeah, alhamdulillah. Well, well, Mangajirim Buba, because you are you journalist, you help us clear the doubt. Lima buka wah ninyi sa. For, for UDP, lo muna dega si UDP, nga always assume ne 75 to 80% will be lies, false. Nan ninyi hamlu. Lu ñu muna di wax bu lu am ñaari xel ne 75 to 80% du nekk dega. Man I have observed that. The tax? That's the examples I am giving you. The am giving you. Baro dafa ma may moto. Yaya Jammeh dafa dem dafa yónni delegation to eh, eh, eh, Mauritania. ne Ousmane Ousmane Sow ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ko ñu character assassinate di ko saga a young man doing his job because bëgguñu ko ko foofu Why, why should you do that? And I, is he not a Gambian to work for the Gambia? Look, lana def, binko musawa. You need to them eh, change, eh, destroy five C at the NIA. Can you imagine those things? You are in the United States. You are saying those things against decent Gambians. Mota Manila, we support PP, UDP. dega 75 to 80 percent téye ko ne is not true te waa APRC li ma leen a wax mooy ngeen oytu wax yi UDP gars yi luñ mu a di wax just to create confusion within the party de ñu ñee ba pare bugu xala bugu eh, we are going to overshadow them as we are overshadowing them so they want to create UDP di dem ba di wax ne eh, MA Ba li mu doon fight for the APRC MA Ba ak eh, Kitim Jaaju mooy so that eh, uh, eh, Fabakary and others ak Yankuba li ñu bëgg a eh, dunda on the party moo tax ñooñu di xeex loolu ah, moo tax ñooñu di xeex loolu UDP moo ñoo faytal ñun APRC <laughs> yow nga xam ne gars yi gars yi dañ doomi de soo sey ne ni mu baadewu ndax ki ndróoke <laughs> so ñoom commencé nañ di matade béy lañ So I want to thank Gambians and all listeners, and once again, I want to thank Gambian talent for offering us this opportunity. I want to acknowledge with appreciation not only your, your message dissemination, but your contribution to youth empowerment. I went to your office. I, I, have, I saw what you do other than radio, uh, online TV programs. And I want to uh, appreciate that very much. I wish you the best. And as I said earlier, uh, if other Gambians who, who can contribute, who can help, Gambian Talents uh, Online Radio, for what they do for Gambian youths, you, you can, you, I will encourage you to please, please give, give a hand to help them out. So thank you very much once again. I'm grateful. F, thank you.